أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم دار الموت بقيني ستان يونغلين دي نيو دي لين زيارة يجل شي نيو بي اك زيارة بي كيفي توك توك ايب كتا دي خاتم رسول شي أحمد بامبا دي سرين منتخى بشير دي نيان سنو برم ياغل كو في تبير الكو مونج جابوتوك سرين توبا كيب دي نيو اك زيارة Serigne Bassirou Anta Niang moom mi toog toogaayu borom Darou Mouhty nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootuk borom Darou Mouhty gépp di nuyu mbokk yi nga xamante ni ñooy safoo seen chaîne bi di Xam Sam Réew euh, TV ba dinu ci topp waxtu wu nekk mbokk yi tey dina ñëw ak yéen rek bëgg indi mboorum gàmmu ak Daarul Muxti ndax jamono yi dama gis ñuy bind walla ñuy wax ni li ko dale ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar muy 1912 ba ren Daaru Muxti guddig gàmm gu nekk dañuy gàmm maanaam guddig altine eh, gu nekk loolu nag kila bëgg indi ay leeral xam le ni gàmmug Daarul Muxti moo mag Daarul Muxti Euh, Daarul Muxti xam ngeen ni borom Daarul Muxti mu ngi ko sanc ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar 1912 ci ndigalul sëriñam ba di ko tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba bi sëriñ bi dem ci géej gi bàyyee ko njaboot gi ba dellu si dem gànnaar yóbbu ko ceen jolof jële ko fa e, mu ñëw njaareem li tax ma ko dafa am ñu bari ñuy wax naan borom daaru mooti njaareem la ko sëriñ bi gàmmu lool may wax ni sëriñ bi bi mu bàyyi ko ci géej gi ñëw Sénégal barab bi nga ni borom daaru mooti moo ko ci ndigalam ca leetar ya mu joxoon Abdoulaye Ndour mu bàyyi ko Gabon ci atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett 1898 borom Daaru Muxti mu ngi guy nguura ca la ko joxe ndigal ngir mu sañ guy tàggoo tudde ko Daarul Manaan borom daaru muuti sanc ko ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer 1900 am fa ñaari at ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar 1902 ñaar fukki fan ya ak juróom benn ci weeru janvier ci la sëriñ bi bàyyi ko daaru salaam ca ngan nga ko maam Cheikh Anta doon ganale ñëw ci barab bii ko borom daarul muuti sancal muy daarul manaan gi nekk diggante Touba ak Mbakke borom daarul muuti mu ngi fa ñëw

mu jox ndiigal borom daarul moxti ni ko na ko gàmmul ci penjum daarul manaan mi gàmm googa ca la borom daarul moxti sose woon ñetti kuréel yi nga xamante ni bi benn bi mooy jàng jës bu bi ci des mawaahibu bi ci des muxadimatul amda bu ko defee ñu jàng buntu ci barsan jiyu Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke yàlla na sunu borom yokk ay leeram nee na waajuram borom Darou Mouhty moo doon jàng moo daan jàng barsun jéyu bi kon gàmmuk Darou Mouhty ñu ngi ko door ci atum junni ak juróom-ñeenti ñetti fan ci weeru juin sëriñ bi dem gànnaar borom Darou Mouhty saa bu altine ci guddi jotee ñëwee mu fanaane ko màggal ba bët set bi ñibb nek ci en jolof borom daru muti nek darul manan, di doxale nonu ba ni mu ndigal ci borom darul moti ngir mu dem sañ ci mbakke kajoor mu dem sañ ci fa ñu wéel nonu ba ni mu jotee ndigal ci njeexteel 1911 serigne bi bind ko lettre jox ko serigne Amsatu Jaxate jox ko ndigal ngir mu ñew sañc pàkk bi nuy àddoo ngeen di teewlu muy daarul moxti borom daaru mu ngi fi fanaan si ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar le vingt cinq mai mille neuf cent borom daarul mooti fanaan si mu tase ak guddik mawlid gi gàmmu guddik altine kerok jàngkat yi dañoo neon Mbàkke Kajoor kenn rek moo andon ak borom Daaru Muuti muy Baay Njaxat keroog moo fi jang ab jusbu bu rek moom la ñu gàmmoo keroog moom la sëriñ Moussa Ka di wax ni Moor Njaxate fa njëkk a ci Cheikh Bamba moo len jusbu kon 1912 ba 2023 téeméeri at la ak fukki at ak benn at mu jot ñu gàmmu juróom fukki gàmmu ak ñaar muy les cinquante deux semaine yi am ci at mi cinquante deux semaines yooyu su fekkente ni da jël juróom fukk ak ñaar nga multiplier ko par junni nga multiplier ko par téeméeri at yi ak fukk ak benn daf lay jox juróomi junniy gàmmu ak juróom-ñaar fukki gàmmu ak astafurlah juróomi junniy gàmmu ak juróom ñaar téeméeri gàmmu ak juróom ñaar fukk ak ñaar cinq mille sept cent soixante douze gàmmu te guddik tey jii bokku ci kon daf lay jox sept mille daf lay jox cinq mille sept cent soixante treize gàmmu juróomi junniy gàmmu ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ba ñu sañcee daarul moxti ak ren waaye gàmmu ya doon gàmmu daaru manaan gàmmu ya doon gàmmu Mbàkke Kajoor doo ko ci boole kon du 1912 la tàmbali gàmmu waaye boroom daarul moxti dafa indaale gàmmu ci barab bii mu sañc di daarul moxti gàmm kooku nga xamante ni bii moom la ko sëriñ bi gàmm looloon ca la fetale woon ñetti sox yooye nga xamante ni sox bu nekk bu ko soqee dafay am lu mu wax wax nañu ni ba bët setee bi sëriñ bi génnee laaj sox yooyu dañ koo xamal ni ko cerno dey moo doon soqi sox yooyu sox bu ci nekk nag am na lu mu wax jarul ma di ci dellu si ndax léegi weddi yeeg ak yooyu moo tax daanaka loolu Serigne Moussa Ka di wax naan am na ci mbir yoo xam ni eh, des na ko misaal waaye am na ci yoo danaan danaan eh, nekkoon ñu weddi ko te kon ñu yàqu ku weddi waaye yàlla yaa cee yàqoo waaye daal guddi googu mu doon gàmmu le 8 juin 1903 soxi na ñetti sox xañ na ku jàkkoo man boo ma ko laajee danaa la ko wax waaye nag du ma ko wax ci télé bi ba ñu bu sëñ bi génnee laaj ñu wax ko ko itam benn bu ci rek sëñ bi ni waaw noonee mu ko waxee day noonee la ame soo demee ci rapport bi nga xamante ni aw raj muy agent secret bu ñu doon wax Omar Niang bi ko l'administrateur de Tivaouane ki ñu doon wooye Victor Alice di duural sëriñ bi nii dafa yor ay ngànnaay daarul manaan agent secret boobu fekkoon na mu dem retraite waaye ci moom la yónnee mu ñëw mu ni ko dama bëgg nga dem daarul manaan rejul ma ba xam Cheikh Amadou Bamba dafa denc ay ngànnaay wala déet daal koy jox ñetti téeméer ni ko sunu fos yi nag doo ci war ndax sunu fos yi dañ leen a xàmmee te bëgguma nga dem daarul naan ñu xam ni ci man nga jóge mu daal di abbu may sa mbay sàll aw fos jox ko Omar Ñang boobu nga xam ni am njàmbur njàmbur la ngir mu war fos wa mu ni ko soo demee rek danga koy xamal ni ko samay bokk dañoo jébbalu woon ci yow man mit nag ma ñëw ngir bëgg yeesal sama njëbbal ci yow Omar Nyang ba mu demee dox loolee mu doon dox bi mu ñëwee dafa bind ab rapport jox ko l'administrateur de Tiwawon Victor Alice ca biir rapport ba daf ko wax ni ko dem naa daarul manaan xaalis bi ma ko joxoon bi ma demee jël naa ci juróom fukki dërëm ni Cheikh Ahmadou Bamba man de samay bokk dañoo jébbalu woon ci yow ma ñëw ngir bëgg yeesal googee moo tax ma ñëw nee na bi ma ko tàllalee xaalis bi sëriñ bi jëlu ko am na ku nekkoon ci wetam kooka ko ni jëlal xaalis bi mu jël ko mu ni ko génnal ci buntu kër gi buntu carré bi sax la bind way néew doole yi fa nekk nga séddale leen ko nee na Cheikh Amadou Bamba ne ma yow nag Omar Niang demal bu ëllëgee su ma julee tàkkusaan ba noppi nga ñëw nee na ci ëllëg sa bi sëriñ bi julee tàkkusaan ba noppi ma ñëw bi ma nuyoo dafa ma ni Omar Niang képp koo xamante ni bii day nee nga da ngaa jébbalu ci man te doo jëfe ay ndigal doo bàyyi ay tere na nga xamante ni loole ngay wax du dëgg ci yow ñi ko Omar Niang jëf ju baax day boo ko jëfee doonte boo xaree ab tàndarma lu weex looluy nekk ca biir jëf ja daa toll noonu du tee sunu boroom dana la ko fay ni ko Omar Niang man dey dafa am lu ma jaayanteeg sama borom te loola daf caa bokk awma sañ-sañu rey jiit walla jaan wala aw yoo sax lépp lu am ak ru daal man Cheikh du Bamba dama jaayanteeg sama borom awma sañ-sañu faat ko la ma jaayanteeg sunu borom itam daf caa bokk ni sañu ma soqi soxub fetal ba tax na ki ñuy wax Mahdi su fekkoonte ni dafa ñëw te ñu war koo jàppale ci soxi fetal man duma ko mën a jàppale ndax dama jaayante ak sama borom te li ma jaayanteek moom daf caa bokk awma sañ-sañub soqi soxub fetal kon Omar Ñang mi ngi ñëw di xool ndax sëñ bi yor na ay fetal sëriñ baa ngi koy tontu ci li muy wax ak moom ngir xamal ko ni ko yitte woowuma ay fetal yoruma ay fetal ndax awma sañ-sañub jëfandikoo ay fetal ca rapport ba Omar Niang ni ko nag bam ma waxee loolu ba noppi fexe naa ba néegi kaas kare yi nekk daarul manaan yëpp néeg bu ci nekk fexe naa ba dugg fa waaye daal neexul ba neexut waaye gisuma fa ngànnaay daarul manaan daal ñi ñëwoon gàmmu si gàmmu gi mu ni ko altine ji weesu la woon gàmmu mu def euh, euh, këmb xala juddu yonent bi entre guillemets la naissance du prophète ni ko ñi gàmm si woon daal dellu nañu ba lu tollu ci téeméeri nit ñoo fa des Daaru naan ak Ibra Fati waaye ay ngànnaay amu fa ba mu joxee rapport ba Victor Alice am na ci suuf fu ñu bay bind fa observation nga xamante ni yow mi ñu jox rapport bi bu fekkee da nga am xalaat danga koy bind ci suuf lan la fa Victor Alice bind daf ni gouverneur Ahmadou Bamba dafa xam ni Omar Niang ci man la jóge rek moo tax mu wax ko lii mu ko wax waaye ay ngànnaay ya nga fa kon soo demee ci rapport boobu mooy firndeel gàmm googu nga xamante ni boroom daaru muuti gàmmul na ko sëriñ bi ca daarul ba ñu teg ca ñetti fan euh, ñu teg ca juróomi fan ñu génne ko yóbbu ko gànnaar kon daal gàmmuk daarul muuti bu ñuy wax ni 1912 mooy li ñu gàmm ci dëkk bi waaye gàmmu gi moo mag daarul mooti ndax daarul naan nañ ko sose Mbàkke Kajoor doog a ñëw daarul mooti sëñ bi nag ak ñëwam njaareem dafa tolloo ak sañcub daarul mooti bi mu nee njaareem itam nag namoon na gàmmu gu ko borom daarul mooti gàmmul ba tax na woo na ko at moo xamante ni borom daaru muuti dafa dem gàmmuli ko njaareem gàmm googee wax nañu ni jàngkat yi xasida yi li tubaab di wax sélection dañu leen doon tànn kenn ku nekk da ngay yëkkati ay bëyit ñu xool sa mokkal ak sa baat bu neex doog laa tànn nga bokk ca jàngkat ya waaye teewul ñi mu bàyyi daaru muuti ñoom at mooma itam gàmm nañu daarul mooti kon daal bokk yi noo ngi ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett daarul mooti ñi ngi ko sàcc ci woon ci atum junni juróom ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar kon Daaru Muhti am na ren téeméeri at ak fukki at ak benn at mu jot danañu fi gàmmu juróom fukki gàmmu ak ñaar juróom fukki gàmm juróom fukk ak ñaar nag bu ñëwee téeméeri yoon ak benn day doon juróomi junni ak juróom ñaari téeméer ak euh, juróom ñaar fukk ak ñaar cinq mille sept cent soixante-douze gàmmu buñ ci boolee goog tey jii muy 73 kon daal ci gàttal loolu mooy taarixu gàmmuk daarul muxti daarul muxti itam ni muy gàmmoo moom rek moo ni gàmmoo ci réew mi yëpp wala adduna bi yëpp ndax adduna bi dul ñi nga xamante ni wax nañu ni gàmmu biddaa ala ba duñu ko def waaye jullit di koy def daal bi nga xamante ni fukki fa ak ñaar ñëw na ci rabiu awal eh, di gàmmu weer wi ñuy wax gàmmu ñuy màggal juddub yonent bi kon at mi bis ba mu feeñoon lañu koy màggal daarul muxti nag weer wi ayug bis gu nekk bis ba mu feeñoon di guddik altine dañoo am barab boo xamante ni mawlit lañ ko tuddee mbaar la woon néegum ñax tabaxu ban Lagi nak dem na ba terrasse la bo xamanteni ni kenn dëkku fa guddik altene gu jot màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu fa dan def te borom daaru muti fonkon ko lool moo daan jàngal boppam jës euh, euh, barsan bi gannaaw bi Serigne Modou Habib gannaaw bi Serigne Abdou mi neena na man mi mako dan jang gannaaw bi Serigne Amidoune Diop serigne tierno Fat ba ni mu ñëwee ci sëñ Moustapha Ndiaye um sëñ Mbaye Ndiaye cëll ñoom ñi nga xamante ni ñoo koy eh, eh, jàng gi jëlee naa ci sama waajur itam mu ni ma ñetti fan yi nga xamante ni dañ koy gàmmu ndax it bu fekkente ni ci at mi la guddik altine gu gàmmu la waaye fukki fan ak ñaar bëccëgu fukk ak benn guddi ga di fukki guddi ak ñaar ci la sallallahu alayhi feeñoon bu ñëwee borom daaru muuti day wax ni fukki fa nañu nañu gàttandu ganale gunge daaru muuti ñetti fan la ñuy gàmm buñ suba la gàmm la dañuy fanaanee gàmmu di gàttandu gàmmu gi bisub gàmm gi ñu gàmm bu jë suba saat ñu gunge ko kon ñetti fan lañuy gàmmu gàmm jàng xasida yi itam sama wajur nee na ma borom daarul mooti am ndox la daan jox jàngkat yi ñoom ñëpp bu ñu jàmbee jàngee ba bët set ñu tifli ci ndox mi ndox moomee borom daaru muti dafay gas am leeñ muy pax mu mag génne ca suuf su yees jël ndox ma sotti ko ca suuf sa wax nañu ni at mi yëpp lu ko waay tawat ci raggi xol wala raggi yaram muy tawat ca suuf sa lay tibb jox la ni la chifa min kulli suuf si lépp lay faj mbokk yi kon lii mooy taarixu gàmmuk daarul moxti daarul moxti nii lañuy gàmmoo fetal yi dañuy fanaanee soqi ay sox ci pénc bi ba bët set kon lii daal moom laa leen indiloon ngir doon leen xamale ak gàmmuk daarul moxti ma di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ak nun di ñaan sunu borom ci daraje yi ki feeñoon ci weer wi di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam darajey liggéeyaa ko nam ba di ko tedd ki xaatimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba darajey taalibe ba ko dan liggéey di borom darul morti yal nanu fekke gamu yu bare bare bari gàmm gi yalla bu mu don sunu mujji gamu. kon ma ngi len di sante di len jëf